on on procès bi am na. Mhm. ñu ngi nekk ci benn situation boo xam ne euh, elle est elle est elle est inédite. Mhm. Euh, un procès en contumace euh, ñu ne c'est invraisemblable une condamn une condamnation même si ñeneen ñi def nañ appel la décision a été publiée tout ça toute la procédure a été faite. Euh, mais ñu ngi nekk ci benn ba tey benn imbroglio xamuñu mbir mi fan lay tàbbee euh, fan lay tàbbee géej je vois que yaa ngi interpellé euh, l'état du Sénégal di ko naan na jël ay responsabilités am li ma ni état bi na jël responsabilité am moo di décision de justice président moo wax ni dañ ko war a appliquer ministre de la justice wax dañ ko war a appliquer je les prends au mot kenn saxalu leen suukar bañ koy wax bi ñu ko waxee ak léegi yàggul ci ay médias sénégalais ak des médias étrangers kon àddina ngi leen di ubbi seen bët di leen xool c'est leur responsabilité ñoo ñoo incarné état bi mais fi seen responsabilité gën a nekkee moo di may mun a yow li Ousmane Sonko taxaw wax ko ci biir Sénégal ñeme woo koo wax man ñeme wu ko wax keneen ñeme wu koo wax wala boo ko waxoon tey caabi féetal a ginnaaw wala su ba ko waxoon caabi féetal ma ginnaaw Ousmane Sonko moo taxaw fii ni damay jël deux cent mille jeunes nañ dem pale génne président bi nga xam ne dañ koo fal boo ko waxoon tey doo fete euh, doo fanaan sa kër Ousmane Sonko moo toog fii mu ni dem leen ngeen taal kër ay nit jël milliards ya fa nekk boo ko waxoon doo fanaan sa kër Ousmane sunko moo taxaw fii saaga fi ay magistrat wax leen lu ne boo ko waxoon doo fanaan sa kër Barthélemy Dias ba mu fi waxee outrage à magistrat dañ ko tëj plus de six mois Ousmane Sonko man des magistrats qui ont la culotte. le, le, le jour justement. dañ ko dañ ko tëj six mois est-ce que la Barthélémy Dias wax moo li Ousmane moo gën a garaaw li Ousmane Sonko wax. donc politique dafa dugg ci mbir non non dama la bëgg a wax rek ni la dañ ko may la nga xam ne may ñu ko benn sénégalais. kon sénégalais yi ne sont pas égaux devant la loi parce que loolu la état bi wone l'état a fait preuve de couardise et de lâcheté dañu am seeni calcul xëy na dañoo bañ coloftal dañoo bañ ay dee xam nga cal état buggoo mu am coow buggoo ay mor mais ay mor am na. drame bi am ci affaire Ousmane Sonko le parcours politique de Ousmane Sonko est jalonné de cadavres et de cadavres de jeunes il y a plus de cinquante personnes mortes du fait des provocations et de d'appels insurrectionnels de Ousmane Sonko et des appels à la violence de Ousmane Sonko. Est-ce qu'il a pas un rapport de force qui non, balance assumé un publiquement. Euh, son c'est-à-dire nit nekk ci réew dem ba euh, la paix sociale mu ak la stabilité mu am loo xam ne ci situation am la dépendre. loolu est-ce du rapport de ne loolu man la euh, kon l'état a failli l'état a parce que bu ñu waree woo Ousmane Sonko tribunal ñu lay woo tribunal li ma woo di woo sama morom amul benn responsable politique bu ñu mës sa woo tribunal nga ne du ma wuy ji wala nga di da ngay génn damay def trouble à l'ordre public wala nit ñi dañuy dugg seen biir kër kenn du ñu may génn wala kenn du liggéey école yi tëj. commerce yi tëj circulation bi ni yàmb mais waruñu analyser li li li li indi loolu. non li euh, ko indi mooy li ma la wax. am na doole hmm. am na doole. bu loolu wéer bu amoon doole duñ ko tëj 60 jours mënut a sawi buntu këram. kon état bi am na moyen. wala wala wala représentativité bu tax hmm. tey. Hmm. Euh, nit ki quand il est en difficulté euh, le pays bouge. non kenn du contester représentativité am ak capacité de mobilisation. ak ñi nga xam ànd nañu moom xëy na pare joxe seen bakkan kenn du ko weddi kenn du ko contesté mais est-ce que état war naa dellu gi na wala yaccaaral ci lu mel noonu xam nga tey Ousmane Sonko bu ci fekkee dafa mën a def li mu def dara fekk ko ci ndax état boobu war naa mën a amati sañ-sañu keneen def lu mel noonu wala lu ko lu koy yées nga dal ci ko mais état bu dugalee politique ci ci ci ci ci judiciaire mm-hmm. mu jàll contre Khalifa Sall. Mhm. mu jàll contre euh, Karim Wade. Mhm. est ce que Karim Wade wala Khalifa Sall dañu woon du ñu mujj tribunal. non non non non est ce que mosuñu ko wax. mais mais mais est ce que Khalifa Sall ak Karim mos nañu woote ni. aller déloger le président de la République. Non, Khalifa, on avait dit Dakar en feu, il a dit pas question. Ah, ah euh, Karim Wade, même chose, le PDS. Ah, mais, ouais, ah, <laughs> Karim Wade, euh. le PDS était encore très fort. Oui? Et pourtant, euh, Karim est, est subir sa peine. Mais Euh, état bi tamit est-ce que bu nee nañ politique bu bu bu bu bu bu duggee justice day day day day jaar ci ci ci fenêtre bi est-ce que état aussi politiqué wul dossier bi ba nga xam ne moom tamit état dafa piéger boppam ba amatul benn marge de manœuvre bi aussi politiqué dossier bi c'est-à-dire euh, même ci ni ñu déroulé procès bi yaayu a eu des calculs politiques parce que bu ñu ko condamné par conte compte contumace hmm? bu ñu ko bu ñu bu ñu bu ko yóbboo def ko procès en contumace ñu condamné ko par contumace y a un calcul politique euh, y a un calcul politique derrière bu ñu ko nanguwul bu ñu ko nanguwul arrêté ba tey hmm. bugguñu euh, que mu acquiescer euh, et que tout la procédure tombe et que mu continuer am une tribune tout ça c'est des calculs politiques te état bu war a assurer état de droit warul dugg ci calcul politique mun naa respecter sa opinion mun naa respecter sa opinion nangul la ko parce que man yàgg naa bind ni que dans cette histoire la l' état a fait preuve de lâcheté du benn du ñaar dans cette histoire l' n'a pas pris responsabilité du benn du ñaar dans cette histoire la wax naa ni que l' état may na Ousmane Sonko lu mayul kenn loolu dama ko yàgg bind bind ko ci livre bi bind ko ci livre bi wax ni li nga xamante Ousmane ko def na ko Sénégal waxuma la Sénégal rek kenn mosu ko fay def waaye meneen réew boo mën di jël ci àddina ku ko fa def état ba dina doxal dina seq ak yow leneen xam nga loolu dama ko wax du benn du ñaar répété ko ci livre bi kon li ngay wax dama ci ànd ak yow je considère que ba tey wax ci may tolloog yow di l'État pour mois n'a pas assumé ses responsabilités te duma jóg ci di ko dénoncer wax naa leen ko ci biir néeg wax naa leen ko ci biti bind naa ko wax naa ko ci télévision nanguma benn yoon nanguwuma benn yoon que ñu nasaxal l'état de droit nanguwuma benn yoon ñu agresser la république nanguwuma benn yoon ñu may sénégalais ba nga xam ne lu ñu ko mayul beneen sénégalais sa c'est une position personnelle que j'assume ki ne pas qui peut ne pas être la position xëy na état paramètres ya mu am ak information yi xam ne am na ko man aw ma ko man damay wax en tant que citoyen di wax li nga xam ne mooy sama yëg-yëg ak li ma bëgg ci sama réew man nag damaa jàpp ni bu bëggee damaa nangu bëgg nekk démocrate damaa jàpp ni état dafa war a yemale ay citoyen dama jàpp bu ma bu ma jàqee wala bu ma tiitee état ma war a protéger état ma war a assurer sama sécurité mais sama sécurité l'état ne l'a pas assurée te menacé wuñu fii dañuy taal sama kër ma damaa mujj jël sama ay responsabilité wut sama ay bodyguard ni ku ñëw sama kër de xëy na mën na koo taal waaye bu mu bu mu ko nettali bu mu fekkee nettali ba mais est-ce que te ña ko ña doon menacé di ko def mais état xam na leen mais état da leen fi bàyyi c'est pas normal et c'est pas acceptable ci loolu laa bëgg a dikk ak Maïmouna gis nga fii amul nu ñu ko mën a rafetale wala nu ñu ko mën a waxee. Hmm? l'État du Sénégal n'a pas été à la hauteur de ses missions ils n'ont qu'à se remettre en cause dans cette histoire la li xew fii mun ta xew ci beneen réew te xew fa France gi dañ ko ëpp démocratie est-ce que ñun ñëpp France démocratie ñoo gën a respecté France droit de l'homme affaire Naimi bi mu amee fii barki Dembo Ndiaye matagul weer. ils de 700 ils, personnes. ils ont les mêmes procédures. ils ont les procédures 700 personnes ont été en prison. kenn tuddee wu leen prisonnier ce qui ont brûlé des bus brûlé des tramways brûlé des mairies dañ leen volé des magasins dañ leen a jàpp yóbbu leen kaso 700 personnes jugé leen kon en procédure d'urgence condamné leen kenn newul ay détenus politique la ñu gilets jaunes tous les meneurs yi nga xam ne dañ taxaw ni nañ il faut maintenant le le moom bi ñu dikkee Champs-Élysées ni maintenant il faut aller à l'Élysée tous ces gens là ont été arrêtés condamné te gisoo responsable politique français bu taxaw défendre wala ni ko benn ONG bu ni ay détenus politique la ñu ñun dañu ëpp démocratie France. on voit même euh, sortie bi gën a intéressante mooy la sortie de Marine Le Pen. oui étonnant pour euh, une adversaire euh, irréductible euh, du pouvoir en en place et euh, en appelle à la défense des institutions. et de la République mais ça parti politique ba xam ne da nga concourir au suffrage universel dans le cadre républicain loolu mooy sa posture. bërki Dembo Ndiaye Jean-Luc Mélenchon ba mu fi defee ni que wéy les casseurs c'est des révoltés mais tout la France la pour dal ci ko ba sa propre parti dañ ko attaqué ni ko c'est pas une posture démocratique c'est pas une posture républicaine ba mu dellusiwaat ci wax jooju est-ce que fii gis nga fi benn opposant bu taxaw ni Ousmane ko li mu wax waxuwul est-ce que gis nga fi benn organisation des droits de l'homme bu fee taxaw ni Ousmane Sonko li mu wax waxuwul. am na ñu ko am na des opposants qui ont pris si am na. ah mais non mais non mais enfin mais ils ont subi les foudres. ah mais justement ko euh, ils ont subi les foudres dañu leen yendoo saaga suba ba ko. saaga dañu leen boo saaga ba ñu tooy boo xatuñ ko. non mais si mais mais mais. c'est loolu laa quand même je veux dire simplement. je veux te dire simplement. il n'hésite jamais dire c'est déjà rassurant et c'est une bonne chose et c'est tout à honneur loolu mooy seen cër loolu mooy seen cër en démocratie parce que loolu nga wax bu koy politique yooyu defee société civile def ko médias yi def ko ñu taxaw ci loolu mooy protéger état de droit mais dama gis